dajeeg yéen tey jaarale ko ci jumtukaay yi ak xarala yi nga xam ne mooy les nouvelles technologies pour waxtaan ak yéen ci li ñu bokk ñun ñëpp muy Ziguinchor waxtaan gi dama koy doore ci kàddu ngërëm di leen gërëm bu baax a baax ndax ci at wii lañu taxawal élection yoroon waroon a tabb maire ak ñiy ànd ak moom bi waroon a tabb président conseil départemental ak ñiy ànd ak moom bu ñu bëri woon ñu sampoon seen dënd jàkkaarloog waa Ziguinchor laaj seen kóolute ngeen tànnuñu ci ñooñu ñëpp gënuñu leen jàkkuñu leen jàng gënuñu leen dëkk ci dëkk bi kóolute googu ngeen def ci ñun ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant di leen wax nag ni saa suñu xëyee suba ba guddi jot lay suñu yitte ak suñu mbébét mooy bu ñu dox ba kenn rek ci waa Ziguinchor ne a ah, man de am naa lu mu rëccu ci li mu wóolu woon Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ndax gor gor a koy fay askan waru ñoo gën a gore ñun damay faral di wax ni ñun ñii nekk acteur politique ñun ñoo ameel askan wi askan wi ameeluñu ndax ku la wóolu ba la li ma war li war doxal sama dekk ci walu njangu ndaw ñi ci walu paj mi ci walu tali ci walu euh ndox mi ci walu leg leg li yow la ci wul koku deselu la dara kon ñu ngi leen di gërëm leen sant di leen wax nak ni bi ngeen ñu tàbbeeg def na juroomi ak ñent neuf mois ci juróom weer ak ñeent yooyu lañ ci jot a liggéey deferaa naa waa Ziguinchor yépp teg nañ ci seen bët li ci njëkk mooy ñoo ngi doon liggéey ndax buñ lay doog a tàbb ci dara faw rek nga càmbar ko ba xam li ci nekk ba pare waaye duñ la tàbb rek nga ñëw di daw xel donc càmbar nañu ba xam li ci nekk ñaaral bi nga xam ne liggéey nañ ko ci jamono jooju ci diir googu mooy fexe ba lii ñu diglante woon ak yéen ndax bu leen fàtte ni ñun ba ñuy ñëw ñëwuñu noonu rek ak loxo neen dañoo ñëw andi benn programme programme bi ñu ngi ko tuddee liggéey Brok woowu ñu waa Ziguinchor ci leneen lu dul liggéey ndax réew moo xam ne dafa tardé ba ñu boole ko ci fukki ñaar fukki réew ak juróom yi gën a tardé ci àdduna kooku ah fecc baax na de def ay événement baax na de waaye li war doon sa yitte bi ëpp mooy liggéey ña nga xam ne ñoom développé nañ ba pare am nañ doole fu ñu liggéey benn yow war nga liggéey juróom ndax danga leen bëgg a dab boo nekkee ci classe ngeen ni cinquante élèves nga jël quarante cinquième soo buggee dab ki jëloon premier moom fu mu jàngee benn yow nga fa jàng juróom motax ñu wo wa zigen Ziguinchor wo wa senegal yépp ci liggey programme bobu ñu diké won nak dafa am nu mu téré motax li ñu njëkk def moy chambar bu ñu paree moy waxtaan ak ñi ñi liggéeyal yépp ci xamal leen ñun lan moy suñu gis-gis ci ni ñu doxale parce que gannaaw yalla nak ñun la yalla def maire bi ñu njëkk wax ak waxanteeg luubal alalu askan duñ ko nangu dërëmu askan ba ko fa la tudd lépp loo xam ne lu ñépp bokk la te mu jóge ci poosu nit ñi di seen lémpo jaaduwut ñaari nit walla ñeent wala juróom àkki moo ko ñoom toog moo xam suuf si la moo xam lu jëm ci état civil la moo xam lu jëm ci recette municipale yi la wala lu jëm ci service technique yi la ak lepp lumo xam ne liggéey la rek lu ma bëgg-bëgg nit ak lu ma nit ku xam-xam randal alalu khalis wala lubal alalu khalis duma ko négocier kenn ta ku ko defit mujjé ak yow ci yoon parce que alalu mbolo alalu mbolo la ñaaral bi moy. gën a góorlu ci farlu ci liggéey bi ci ñëw heure wàcc heure waaye heure gi nga fiy nekkit nga jagleel ko mairie bi jagleel ko citoyen yi nga xam ne dañuy soxla mairie bi ñetteel bi mooy càmbar ba xam ndax li ñu soxla ci ay nit yi war a liggéey ci mairie bi moom moo am dëgg dëgg dëgg dëgg ndax léeg-léeg xam nañu ci mairie yi dañuy bëgg duggal dugal yenn saay mbirum politique ba di jël di jël di jël ba mu ëpp soxla mairie bi bu ko défé li ëpp ci budget mairie bi dañ koy yobbu ci fay ay salaire ci jamono joju war nañu dem waroon nañ ko yobbu ci hôpitaux yi yobbu ko ci école yi yobbu ko ci marché yi yobbu ko ci tali ak fenen ak fenen pour wa Ziguinchor gi ci sen bop lolit amna am bu am solo buñ ci def ba yeen ñepp gis ngeen ko ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ci méthodologie liggéey bi la woon ñu def ko ci juróom-ñeenti weer yi nga xam ne weesu nañ ko waaye it ci liggéey bi nga xam ne moom lañ sas ndax xam ngeen ni mairie yi pàcc la ci nguur ci nguuru Sénégal ci état bi mu am loi boo xam ne moo ne lii ak lii ak lii ak lii la ñu jagleel mairie yi bokk na ci njàngu tut tànk yi bokk na ci paj mi ci lépp lu jëm ci poste de santé yi ak dispensaires yi bokk na ci li jëm ci assainissement lu ñuy def ba euh, lépp lu jëm ci canal yeeg ñoom see mu mu jaar yoon bokk na ci wàllu urbanisme ak habitat mooy lu ñuy def ba dëkk bi neex ñu am ci ay jardin am ci ay place publique am ci ay plateau sportif ak yeneen ak yeneen juróom-ñett la wala juróom-ñeent yoo xam ne lu ñu transféré na jox nañ ko léegi communes yi nag am na jéego yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey te defe naa kuy yeewoo Sigicoor rek gis nga ni am na lu ñu ci def naam ñu ñu wutu ci maire bi am de lu ñu fi bàyyi woon loo xam ne lu baax la ñu continuer ci loolu parce que mbir moom boo ko jotee rek nooy def ba mu gën a baax ba mu gën a ñoŋe ba mu yokk moom nga war a def ci wàllu njàng mi fexe nañu ba ñi ngi jàppale école yi nuñ ko mënee defe naa ren la ñu joxe ci fourniture scolaire pour jàppale suñu doom yi rawatina nag waajur yi nga xam ne léeg-léeg seen loxo du jot seen gannaaw kenn mësul gis lu toll noonu ñu def ko ci Ziguinchor ci jàppale école bi noonu lañ koy defee ci bëgg nañ ci suñu programme fii leeg 2024 dootul am benn école ci Ziguinchor boo xam ne defaluñu ko miir ba mu tëju ñu defal ko bunt ba école ba xale yi mun a nekk seen sécurité ci biir ndax école boo xam ne sàmba booy bu jógee fale mun naa dugg mbaam xoof bu jógee fale mun naa dugg nag mun naa dugg xaj mun naa dugg matt ay xale loolu ñëpp xam nañ ni amul sécurité suñu doom moo tax le trente war nañoo commencer pose premier pierre lu mel ni école Belfort bi lu mel ni école Kanjala euh, ak feneen ak feneen école yëpp bëgg nañu clôturer ba. xale yi dootu ñu nekk danger bu ñu xañee xasee dugg ci école bi waaye dinañu améliorer kaaraange gi jël ay nit yoo xam ne ñooy doon gardien ci école yi waaye ñeen ñëpp xam ngeen ni Ziguinchor ba léegi am na lu ñuy wax abri provisoire am na lu mat 48 abri provisoire mooy ay sàkket yoo xam ne fa la xale yi di jànge mu amit yoo xam ne donte classe la ñëpp xam nañ ni lii matul matalul classe ñu ne nag am nañu tey ambition programme boo xam ne tabaxaat ay salle de classe ba ci diir gu gàtt du am fenn ci Ziguinchor foo xam ne nit day nekk ci ay sàkket di jàng wala mu nekk ci ay salle de classe yoo xam ne kenn yéenewul sa doom jàngee ci classe yu mel noonu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne fas yéene nañ ko def ci école bi waaye yemuñu ci loolu ci wàllu paj mi am na programme bu mag bu ñuy lancé boo xam ne poste de santé yi fi nekk bëri na yoo xam ne ba léegi mënul dox surtout maternité yi parce que la waroon tabax pour matrone yeeg sage-femme yi mën a nekk foofu amul dinañu lancer loolu yépp tabax ko dinañu yeggal it poste de santé bu Gumel dina ñu defaraat poste de santé bu Jaabiir ak yeneen ak yeneen yu mel noonu parce que paj mi dafa am solo le fii ak le 30 ak le 31 dina bëri loo xam ne ci ay jumtuwaay ci wàllu faj ay lal ay table d'opération waye garab gu beuri yo xamné nous lu ñu la li ci coopération décentralisée li ci ay bonne volonté na ñu joxé ko dinañ de santé yi nekk ci biir waye nañ ko ci hôpitaux yi parce que bëgg bu nekk ak bu nekk di faju bu baax it lu Silence premier unité boo xam ne day def chimiothérapie mooy ñi nga xam ne yàlla nattu na leen ba ñu am feebar bu métti boobu di cancer te ñu ñu doon war a dem di ndakaaru pour ñu leen di defal chimio tey am nañu premier unité chimiothérapie bu nekk fii ci hôpital Silence bi nga xam ne ci maire bi la dépendre ñoo ngi lijjanti pour mun a am néphrologue mooy médecin boo xam ne loolu mooy liggéeyam bu waram ñëw Ziguinchor su mënul ñëw tok fi définitivement it muy ñëw ñaar ba ñet yoon ci wër bi pour jappalé malade yi waaye nag dinañu former ay nit fi yo xamné ñokoy def bu né nam ci jamono ji ñu nekk cancer yi dal jigéen yi muy cancer col de l'utérus ak yu mel nonu mom la mëna fajagum waaye ñaan nañu yalla mu may ñu ba ñu yaatal ko ci xétu cancer kon paj mi suñu yitté la ci yitté yu gëna reuy ñu fas yéene ci def ay jéego yu rëy rëy lu mel ni ay service d'urgence parce que bokk na ci paju Sénégal li ci gën a doy waar mooy service d'urgence dafa tumuranke mooy tey ñu ko yàlla ku accident woon léegi ñu yóbbu ko hôpital ñu ko war a dalal def premier soins yi nga xam ne loolu day faj lu bëree bëri kon loolu it ci suñu programme bokk te am nañu jéego yuñ ci door mbirum infrastructure yi muy tali yi bëgg nañu Ziguinchor ñu améliorer infrastructure yi moo tax man mii en tant que maire yëkkati naa lu mel ni machine pondeuse boo xam ne day defar ay pavé di defar ay briques ak yeneen ak yeneen may ko commune bi ci fan yi di ñëw dinañ ko installer fële ci Kenya fi ñu defar place bi commencer defar suñuy pavé ba nga xam ne tronçon tali yu bëri nañ ko mën a pavel suñu bopp waaye mul ci pavé tali yi rek nee naa Ziguinchor dañoo bëgg mu doon dëkk boo xam ne dafa neex kenn ku ne war a mun a génn di doxantu dem toog ci ay place publique moo tax am nañu programme bu rëy boo xam ne ci loolu lañ ko jagleel mooy fexe ba am ay place publique am ay plateau sportif ci biir quartier yi ba xale yi di mun a football wala basket ci condition yu baax waaye am nañu ambition boo xam ne it ci wàllu marché yi am na ñaari marché yoo xam ne lancé ñi ngi lancé appel d'offre yi benn bi mooy marché au poisson fexe ba marché boo xam ne jën gi rek lañ ko jagleel fii ci Budodi ci wetu quai de pêche bi bu boobaa it dina fexe ba lépp loo xam ne da doon gën a feesal marché Saint-Maur ñu yóbbu ko détaché ko foofu waaye deuxième marché bi mooy marché aux produits agricoles ndax ñun ñëpp xam nañ ni li tax Saint-Maur mel nii mu mel nii bokk na ci goana bi ñuy wax ak yeneen ak geneen waaye tey bu ñu paree marché Tilène bii nga xam ne donte li ci des bëreetul. ñu fexe ba am marché au poisson bu ñu bëgg a def fii ci 54 mètres bi def marché au produits agricole du moins daal def marché au poisson fii ci Budodi jàpp naa ni loolu dina désengorger Saint-Maur waaye nag marché yi fi amoon lu mel di marché ngelaw marché Grand Dakar ak Baneto ñu réfectionné waat ko yaatal ko defe naa loolu dina tax ba marché bu nekk dina nekk ci norme yi gën a baax ba yenn risques yi am ci marché yi ba léegi-léegi ni nga dégg ñu ne incendie am na lépp lakk na loolu nañ ci dañ ko musal Ziguinchor ak waa Ziguinchor kon li ñu bëgg a def bëri na su ma doon lim tey mun nañ fee fanaan waaye lii lépp nag mbokk yi ndimbal da ciy fekk loxol borom li tax ñuy wax citoyenneté mooy kenn ku nekk di laaj bis bu nekk balaa mu naan lan la municipalité bi defal ma mu war a njëkk a xalaat man lan laa defal municipalité parce que defal municipalité mooy defal sa bopp moo tax ñuy rafetlu lu mel ni service civique bi nga xam ne lancé nañ ko woo ci ndaw ñi woo ci mag ñi waa Ziguinchor yu bëri ñëw uyu si ñu mooy service boo xam ne service volontariat yàlla nit day jog ne damaa ñëw defaral sama commune te laajuma ci dara liggéey bu rafet la service boobu def ci jamono yiy wees gis ngeen ni bi ñuy dëgmal nawet bi maire bi da daan fay ay xaalis bu dul jeex ay entreprise pour ñu nettoyer caniveau yi waaye ren gis ngeen ni waa Ziguinchor ñoo jóg ne dañ koy def ba sax ay nit jóge Ndakaaru jóge Jurbel jóge fépp ñëw ñoom it ne dañ ciy bokk ñu am ci résultat boo xam ne kawe na suñu njort te kenn gisul ndox mi taxaw ak Ziguinchor nga xam ne day def plus de 2000 euh, millimètres ci wàllu taw dégg nañu inondation fu ne waaye néew na Ziguinchor te service civique boobu moo ko liggéey te kon ni di ko liggéey ci nettoiement yi ñuy def ci biir dëkk bi kon loolu wane na citoyenneté li mu mun a def ci dëkk noonu lañu bëggee nag wax Ziguinchor waa bu nekk ne li ñu war a defar ci dëkk bi du jóge ci poche maire de man aw ma ay milliards du jóge ci poche conseil yi maire am na lu mu ciy joxe keneen joxe keneen joxe li gën a firndeel joxe boobu mooy suñ la andilee kayitu lempo nga fay ko gis nañ nag ni dafa mel ni Ziguinchor yaay xam nañ fi ñu bëgg a jëmee dëkk bi ndax gis nañ ni soo jëlee jakartamaan yi nangu nañu fay soo jëlee ñi yor baar yi nangu nañoo fay barki démb tailleur yi lañu toogal nangu nañoo fay commerçant yi nangu nañoo fay noonu lañ ko bëggee ci Ziguinchor waay yépp ku ñu àndil kayitu lempo sa kër jegeel wa lempo wala wa trésor bo mënul fay lepit ñaanal ñu defal lako ay patch wër wu ne nga am lo fay ta xamni ni bobu ngay joxe moy defar tali wara jaar sa buntu kër moy andi courant bi sa buntu kër moy defar poste de santé bi nek sa wetu kër ba nga mëna faju moy defar école bi nga nek sa wetu kër moy tax xalé yi jang dans de bonnes conditions programme bi ñu am bëgg xalé bu nek li wax le cantine scolaire le lait à l'école loolu mo koy fay moy tax ñu joxe fourniture scolaire lañ leen mëna garantir moy du am deureum bo xamne nit fay na lempom ñu ne jadd na duñu duggal ko fenen fudul li nga xamne ne askan wi la am nañu programme Ziguinchor ville lumière moy fexé ba lampadaire solaire yi ñu jënd ci ñu bëree bëree bëri bëri mais mbokk yi xam ngeen ni lolu xaalis la parce que benn lampadaire solaire bu jaar yoon rek lampe fond yi ngeen ni gis munoo ko am moins de neuf cent mille francs moom ak potom ak lépp ñu ñaan yàlla mu may ñu ñu mën a def programme bu rëy rëy rëy te njëkk cee jiital nag ñii suñu priorité mooy quartier yi nga xam ne dañ leen xawoon a sàggane lu mel ni jiboog lu mel ni jeefaay lu mel ni euh, benn partie ci kànjala lu mel ni jaabiir lu mel ni yenn côté ci linjaan yi ñu am pro programme ne bëgg nañu fexe ba ñooñu ñëpp ñëbbu fa lumière suñu mënul dugal lumière bi fépp nañu fexe ba la yeneen quartier yi am ñoom ñu am ci loolu xam ngeen programme yu rëy rëy la am na quartier Ziguinchor yoo xam ne tey ba léegi ndox jafe na leen ñu bëgg liggéey ak SDE ak Sen'Eau fexe ba ñu jot ci ndox loolu moo tax suñu leen nee ñun ñooy defar suñu dëkk la yaakaar ci yéen te liñ leen di laaj du bëri mukk nag as tuut lañ leen di laaj kenn ku ne su làmbee tuuti poosam ñu dajale ko mu doon du bëri ñu defar suñu dëkk ba àdduna yépp ñeeñu Ziguinchor loolu mooy suñu ambition ci yéen ñu daaneel ni am na yeneen programme yu ñu andi lu mel ni économie sociale ak solidaire mooy nu ñuy def ba jàppale suñ yaay ji toog fii di def jardinage bu ndaw gannaaw ci gannaaw Linjaan wala Kolobaan wala fu munti doon nu ñuy def ba jàppale suñu rakk ji nga xam ne mu nga bëgg a taxawal pulaayam nu ñuy def ba jàppale suñu yaay jee nekk ci euh, dex gi di génne paañ bi ak yoxos bi nu ñuy def ba ki bëgg a commerce ñu utal ko financement ki bëgg def transport ñu jàppale ko ci financement moo taxoon ñu lancé programme boobu te nag nañu fexe bu mobiliser xaalis bu ñu mobiliser xaalis daal di tabax taxawal li nga xam ne moom la ñu tuddee couveuse d'entreprise mooy liy former nit ki balaa ñu koy jox xaalis pour mu liggéey parce que koo jox xaalis sa formé woo ko rek boo moytul dina fayit gannaaw bu ñu ko formé pare nag yëkkati lenn ci xaalis abal ko mu dem liggéey di fay loolu yéene la bu ñu am pour Ziguinchor région bi laa wax nag waxuma seulement commune bi mënoon nañ ci bañ a fekk parce que bokkul ci compétence yi nga xam ne transféré nañ ko waye dañoo am yene gu reuy pour dëkk bi ñuy continuer di lancer appel bonne volonté yëpp nee nañu ku am sa dix mille xeebuñu ku am sa cinquante mille xeebuñu ku am sa 1 million xeebuñu bu ñu dajalee ba am lenn lu ñu mën a lancer liggéey bi rek ñu lancer ko commencer di jàppale nit ñi di leen financer yii mbokk yi mooy suñu gis-gis ci Ziguinchor lii la ñu lancer am jéego yu am solo ñu def ci 2022 bi donte 9 mois rek lañ ci am fas yéene nag 2023 bi doon dëgg dëgg dëgg nag année lancement bi année confirmation bi ñu am yaakaar ne bu ngeen ci jàppee yéen ñëpp dinañu am résultat bu kawee suñu njort te njëriñu waa Ziguinchor lay doon moo tax ñu leen yi woowaat di leen soññaat ci ngeen jàppale seen mairie jàppale seen conseil municipal jàppale seen maire parce que su dul su dul yéen mënuñoo am résultat bi ñu bëgg motax gannaaw bi ñu leen ñaanale sant yàlla bi ñu mayee ñu dund 2022 ba yegg si fii may ñu ñu dund ko am ci wér yaram tal ko ak fekke ko di di leen souhaiter une très bonne fin d'année di leen wax ni suñu ambition rëy na bo boo xam ne budget bii nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci 3 milliards pour 2000 bi 2022 bi yóbbu ko ci plus de cinq milliards pour deux mille vingt trois daanaka donte doon daanaka yokk na lu ëpp deux milliards ambition yooyu mooy suñu ambition deux mille vingt di ñaan yàlla deux mille vingt gën deux mille vingt lépp loo xam ne lu nit di di yóotu la ci wàllu wérgu yaram ci wàllu wërsëg ci wàllu jàmm ci wàllu sutura yàlla na gën a bëri ci deux mille vingt trois ci deux mille vingt ñu ngi leen di gënal Je vous sant souhaiter une excellente année 2022 viens vous souhaiter une excellente fin d'année 2022 Je vous souhaiter une meilleure année 2023 ci wa wa bonsoir. J'ai l'honneur de revenir m'adresser à vous pour cette euh, première fin d'année que je vis en tant que premier magistrat de la ville de Ziguinchor, nous avons été portés à la tête de cette mairie depuis bientôt neuf mois. Neuf mois qui ont été des mois pleins, des mois passionnants, des mois trépignants, mois pendant lesquels nous avons essayé de mettre en place les fondamentaux des idées, de la vision et du programme que nous, avions présenté aux chorois. Mes premiers propos seront des propos de remerciement à cette formidable population ziguinchoroise, toutes branches confondues, quelle que soit l'appartenance politique, ethnique, religieuse, remercier cette formidable population ziguinchoroise de nous avoir fait confiance et de nous avoir de cette mairie, qui est une mairie symbolique au Sénégal, avec une histoire extrêmement dense et intense. C'est un honneur pour tout fils ou toute fille de Ziguinchor de pouvoir un jour se faire appeler Monsieur le maire de Ziguinchor. Derrière moi, se trouve l'image d'Auguste, fils de Ziguinchor, qui avant moi ont eu à conduire les destinées de cette ville. Et cet honneur, je le dois à vous, Ziegenchoroises et Ziguinchorois. C'est pourquoi je puis vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre possibilité pour être à la hauteur de cet honneur, pour être digne de votre confiance ce que nous avons commencé à impulser. Ces neuf premiers mois ont été des mois de prise en main d'abord de l'institution municipale, des mois de mise en place d'un système de travail et d'organisation, des mois de, de dressage de l'état des lieux, ça a été des mois également de contact intense avec les populations pour mieux comprendre leurs aspirations. Ces premiers mois nous ont permis de poser les premiers jalons de ce que nous considérons comme étant une gestion d'une collectivité, qu'elle soit territoriale et demain de la collectivité étatique. Gestion qui doit être basée sur un certain nombre de valeurs fondamentales D'abord, la transparence, la probité dans la gestion de la chose publique. C'est pourquoi je puis assurer aux Iguinchorois que sous mon magistraire, aucun écart ne sera toléré. Ce que nous vivons à l'échelle nationale dans ce pays et ce que nous vivons globalement à tous les échelons des collectivités territoriales, on l'admettre. Le service public, comme son nom l'indique, c'est de servir le public dans la dignité, dans l'honneur, dans la transparence, mais dans la communion également avec ces populations. C'est pourquoi, dans cette mairie, nous ne tolérerons aucun écart dans la gestion des affaires publiques, sur le plan domanial, sur le plan de l'état civil, sur le plan des recettes, sur le plan des services techniques, à tous les niveaux ce que nous exigeons de tous les agents de la mairie et ce que nous exigeons de tous les conseils municipaux, c'est de servir les populations de Ziguinchor et non pas de se servir de l'institution municipale. Deuxième valeur extrêmement importante, ou alors deuxième axe programmatique, c'est que nous étions venus vers vous avec un programme qui s'appelle BUROC, un programme avec un certain nombre d'axes fondamentaux. D'abord, les compétences transférées qui découlent de l'acte 3 de la décentralisation. La santé, l'éducation, l'urbanisme et assainissement euh, et toutes les autres attributions qui ont été transférées aux collectivités locales. Nous avons commencé à poser les jalons d'une gestion axée sur un bon niveau de prise en charge des besoins des populations. L'assainissement, l'hygiène publique, l'urbanisation, nous nous sommes fixés comme credo que Ziguinchor doit être l'une des villes les plus propres du Sénégal, pour ne pas dire la plus propre. Évidemment, avec des moyens extrêmement limités, mais avec la collaboration de programmes étatiques comme l'UCG, le Promoged, la mairie a beaucoup fait pour doter la ville d'engins de ramassage des ordures, d'engins de travaux publics et tout faire de sorte que la ville de Ziguinchor soit l'une des plus salibres et l'une des villes où il fait mieux vivre. Nous le faisons mais nous comptons sur la contribution des populations. Nous le faisons avec déjà un grand élan de volontarisme des populations ziguinchoroises, notamment de sa jeunesse ou d'une frange importante de sa jeunesse, qui a accepté de répondre à notre appel pour la mise en place d'un service civique communal. Et vous avez vu l'excellent travail que ce service civique communal a abattu avant, pendant et après l'hivernage pour curer les caniveaux, nettoyer les grands axes, de sorte qu'on n'a quasiment pas eu de problème. Ces tâches nous coûtaient énormément d'argent dans le passé. Et aujourd'hui, avec l'engagement des Iguinchorois, de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons, même de gens beaucoup moins jeunes, nous avons pu relever ces défis. Cet élan de volontarisme, la citoyenneté est au cœur du programme BROC et nous y reviendrons dans d'autres aspects la prise en charge d'une bonne offre pour l'éducation. Dans les jours à venir, nous allons procéder à des poses de première pierre pour les murs de clôture des établissements scolaires. Parce que notre objectif en matière d'éducation, c'est de mettre en sécurité nos enfants qui fréquentent les écoles préscolaires et élémentaires qui relèvent de la compétence de la mairie. Et pour cela, nous avons considéré qu'aucune école dans le périmètre de la commune de Ziguinchor ne doit être une école ouverte, sans clôture, qui permette de sécuriser les élèves. Nous allons lancer un ambitieux programme pour clôturer toutes les écoles, mais également pour construire des salles de classe, parce qu'il y a encore des abris provisoires à Ziguinchor, mais il y a également des classes qui n'ont de classe que le nom, malheureusement il n'est pas admissible que nos enfants continuent à étudier dans des conditions indignes d'un être humain. Nous avons beaucoup œuvré cette année pour appuyer l'école et particulièrement les parents les plus démunis en les dotant de fournitures scolaires à un niveau jamais égalé dans la commune. Nous comptons continuer dans cette lancée et en faire encore toujours un peu plus année après année la santé, qui est une préoccupation, pas seulement pour ce qui relève de la compétence de la commune, c'est-à-dire les postes de santé, les dispensaires et les maternités, mais même au-delà, les hôpitaux qui ne relèvent pas de la commune. Dans les jours à venir, nous allons procéder à une distribution d'importants lots de matériel que nous avons pu acquérir sans que la municipalité ne débourse un franc parce que Beaucoup de, ces, de ce matériel est issu de la coopération canadienne notamment, mais de bonnes volonté sénégalaise qui ont eu à donner leur contribution. Nous avons comme préoccupation d'améliorer l'offre en service public de santé en mettant tous les postes de santé de Ziguinchor à un niveau optimal, en équipement d'abord, en personnel ensuite. Et c'est pourquoi des travaux seront lancés pour, par exemple, construire les logements du personnel au niveau du poste de santé de Boucotte, pour parachever le poste de santé de Goumel, pour réfectionner et améliorer le poste de santé de Diabir. Tout cela est inscrit dans le budget que nous venons de voter et qui va couvrir l'année 2023. Nous ne nous arrêtons pas au niveau des postes de santé parce que nous voulons le faire travaille également à appuyer autant que possible les deux hôpitaux, l'hôpital régional et l'hôpital de la paix. Et je dois magnifier qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital Silence, nous puissions mettre en œuvre la première unité de chimiothérapie. Certes, pour le moment, ça ne peut traiter que les cancers féminins, mais notre objectif, c'est d'aller progressivement pour pouvoir traiter toute forme de cancer euh, dont souffriraient les populations de Ziguinchor et des communes environnantes. Sur le plan des infrastructures, nous sommes en train d'essayer d'abord de mettre en place notre propre système. Et c'est pourquoi nous avons offert à la commune de Ziguinchor un certain nombre d'instruments, dont le plus en vue, c'est une pondeuse de briques, de ourdis, mais également de pavés, pour que la commune puisse produire elle-même le maximum de pavés, le maximum de briques pour les chantiers de clôture des édifices, mais pouvoir également lancer des travaux de pavage des rues, mais également les travaux d'aménagement des places publiques qui peuvent avoir besoin par endroit de pavés. Mais également dans le cadre du programme PACASEN que nous avons trouvé sur place, et nous sommes en train de nous battre pour mériter les enveloppes que nous devons recevoir dans le cadre de ce programme-là. Il y avait certes des lenteurs, nous les avons trouvées ici. Je m'en veux pour preuve le volet Pakassène qui devait concerner les infrastructures routières. Il y avait beaucoup de retard. Nous avons dû insister au niveau de la GTIP pour que le contrat soit résilié finalement parce que le tronçon qui passe devant l'église de, de, dure depuis trop longtemps. Et il y avait des retards, nous avons dû prendre nos responsabilités pour résilier ces contrats et très bientôt, s'il plaît à Dieu, lancer un nouvel appel d'offres pour avoir des entrepreneurs beaucoup plus crédibles et réaliser rapidement ces tronçons routiers qui sont déjà budgétisés à hauteur de plus de 2 milliards et dont les fonds sont disponibles. C'est de la même manière que nous avons un ambitieux programme d'aménagement paysager. Nous voulons que Viguenchor soit agréable pour celui qui circule, pour celui qui veut sortir se promener, agréable à vivre. Et pour cela, il nous faut aménager des plateaux sportifs, des places publiques, des jardins publics, parce qu'il n'y en a quasiment pas à Ziguinchor. Si vous voulez sortir de vous promener, vous n'avez pas un endroit où aller vous promener. 2023 sera l'année de lancement de ces chantier qui devrait nous permettre d'offrir aux Iguinchorois un meilleur cadre de vie. Je pourrais continuer à énumérer et à énumérer, ça prendrait des heures et des heures, mais c'est vous dire simplement les ambitions que nous avons pour cette ville et que nous comptons réaliser avec vous. Et c'est pourquoi je disais tantôt que la citoyenneté est au cœur de notre programme. Ce que nous attendons de chaque Ziguinchoroise et de chaque Ziguinchorois, c'est de répondre présent également. Parce que notre ville sera transformée par nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui descendra du ciel pour le faire, mais ce n'est certainement pas l'État central qui le fera. Nous collaborons avec l'État central. L'État central agit beaucoup à l'intérieur de la commune, mais attendons de nous-mêmes les efforts maximaux à faire pour pouvoir nous offrir la ville que nous voulons, la meilleure ville du Sénégal et même de l'Afrique. C'est largement à notre portée. Et c'est pourquoi on, dira tout le temps comment on fait pour réaliser tout ça. Le budget passe de 3 milliards en 2022 pour être projeté à 5 milliards et quelques en 2023. Nous le pouvons et nous pouvons même plus. Parce que ce que nous avons fait ces 9 mois nous montre que c'est possible. Mais ce sera possible avec la participation à l'adhésion de chacun et chacune d'entre vous. Ne serait-ce que sur le plan fiscal, c'est les impôts qui permettent de doter l'État central et les collectivités locales en moins. Nous ne vous en demandons pas beaucoup. Et je me réjouis de voir que de plus en plus les Guinchorois adhèrent. Les différents secteurs sociaux professionnels, toutes les réunions qui se tiennent au niveau euh, de la perception municipale, avec la participation des conseils municipaux, comprennent où nous voulons aller avec la ville et adhèrent à ce projet-là. Les Jakartaman, par exemple, ont accepté de payer ce qu'ils devaient payer. C'est 100 francs par jour, ce n'est pas beaucoup. Les tailleurs récemment l'ont accepté. Les commerçants ont accepté. Les tenanciers de bar ont accepté de payer les taxes délibérées par le conseil municipal depuis longtemps mais qui n'étaient pas payées. Et ce que nous attendons de chaque gigant chorois et de chaque gigant choroise si vous recevez des avertissements d'impôts chez vous, déplacez-vous pour aller à la perception municipale ou au service des impôts et domaines, selon la nature des impôts. Si vous ne pouvez pas payer tout de suite, demandez des moratoires et payez progressivement. Sachez que cet impôt que vous payez, tant que je serai maire de cette ville, aucun franc de cet impôt ne sera détourné à autre chose que l'utilité publique. Et c'est cet impôt qui va nous permettre de réaliser les ambitieux programmes. Par exemple, le programme Ziguinchor Ville Lumière. Nous voulons lancer sur 2023 l'acquisition de centaines, voire de milliers de lampadaires solaires, avec comme priorité les quartiers qui ont été les moins favorisés jusqu'à présent. Nous voulons que l'éclairage public aille partout. Les programmes d'adduction d'eau, puisqu'on a encore des quartiers à Ziguinchor qui n'ont pas accès à l'eau. L'argent que vous donnerez, les impôts que vous payerez, les taxes locales que vous payerez, je puis vous garantir que chaque centime de cet argent sera consacré exclusivement à la réalisation de ces missions de service public pour que les Guinchorois vivent mieux. Et c'est pourquoi je disais que la citoyenneté est au cœur de notre programme. Au-delà maintenant du programme municipal, le programme Bourok avait initié un certain nombre d'axes comme l'économie sociale et solidaire que nous avons lancé ici. Ça avance lentement, mais sûrement. Mais nous continuons à lancer un appel à toutes les bonnes volontés de contribuer pour nous permettre de constituer le capital primitif qui va nous faciliter l'encadrement et le financement de du petit entrepreneuriat dans la région de Ziguinchor. Je ne parle pas de la commune de Ziguinchor. Parce que ce volet, nous voulons le faire dans le cadre de l'entente interdépartementale qui réunit les trois départements de Ziguinchor, Oussouy, Ziguinchor et Bignona. Nous comptons sur chacun et chacune d'entre vous. Le principe était simple. Si chaque bonne volonté donne 50 000 francs, je ne dis pas chaque sur roi, si on en a 100 000, c'est 5 milliards de budget qui nous permettront facilement de réaliser des choses extraordinaires avec la microéconomie, c'est-à-dire l'ostréiculture de nos mamans, la transformation des produits, c'est le petit commerce, c'est l'aviculture, c'est l'apiculture. c'est autant d'activités, c'est le petit transport qu'on pourra financer, encadrer d'abord, former et ensuite financer et surveiller pour que le boom économique que nous attendons dans la région, nous puissions l'avoir parce que le potentiel économique, il est là. Et il est à nul autre pareil. Il est extrêmement important. Voilà autant de grands chantiers qu'on a essayé de lancer progressivement lors de ces neuf derniers mois avec la participation de toute l'équipe municipale que je félicite, que j'encourage également, parce qu'ils ont compris l'esprit dans lequel ce programme a été conçu et ils ont compris où nous voulons aller avec Ziguinchor. Avec l'ensemble des conseils municipaux, quelle que soit leur coloration politique, avec le bureau municipal qui a très tôt compris et à côté de nous, mais avec vous, toute la population ziguinchoroise. 2023 doit être l'année d'éclosion. 2022 était l'année de mise en place des fondamentaux. 2023, à partir de janvier et sans interruption, doit être l'année d'éclosion de ce programme que nous avons présenté. Il y a beaucoup d'autres aspects sur la digitalisation que nous allons lancer bientôt également pour permettre de plus en plus aux Iguinchorois, aux élèves, quel que soit leur niveau, de pouvoir bénéficier d'enseignements de qualité à partir de chez eux, mais également pour pouvoir mettre en exergue et en valeur les atouts économiques, touristiques, tout le potentiel de Ziguinchor dans un monde virtuel digital où on pourra entretenir des partenariats avec, le monde entier. C'est nos ambitions pour Ziguinchor et c'est à cela que nous appelons tous les Ziguinchorois. Je ne doute point que vous ayez compris ce que nous voulons pour cette ville. Et nous le faisons avec le cœur. Nous n'attendons absolument rien en retour même pas de remerciements, parce que ce qu'on fait pour sa ville, ce qu'on fait pour son pays, on le fait pour soi-même. Et c'est pourquoi nous clôturons cette année 2022 sur une note d'espoir. Et nous ouvrons l'année 2023 sur une volonté ferme de réaliser ce qui n'a jamais été réalisé au Sénégal par une collectivité. Nous le ferons ensemble et je sais pouvoir compter sur vous. Je vous souhaite une très belle, fin d'année 2022 et vous souhaite une année 2023 100 000 fois meilleure par rapport à toutes vos attentes en matière de santé, en matière de prospérité, en matière de bonheur, en matière d'éducation, en matière de sécurité. Nous vous souhaitons une meilleure année 2023. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée.